xamante ne tey yëkkati nañ ko teg ko ci seenub loxo gis nañ fonds monétaire international ci ndorteelu mois de juillet bi dina yëkkati ay koppar financement lu toll ci 320 milliards yoo xamante ne warees na leen kaa jox loolu daal di nekk ci ay prêt yoo xamante ne jox nañ leen ko ci diiru cent jours yi dama lay limal li nga xamante ni état du Sénégal daal dina ko ciy def mooy fi ma dooree sànq ak yow muy 224 milliards yi nga xamante ne fay nañ ko ay arriérés de bourse ak bourse en cours yi ñu daal di génnee 41 milliards fay ko ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo yor lépp lu jëm ci wàllum agriculture daal di yëkkati 224 milliards yoo xamante ne nii dafa impacté directement ak uniquement ñi nga xamante ni ñoom ñoo di les citoyens sénégalais yëkkati 10 milliards fay couverture maladie universelle yëkkati waat 53 milliards dugal ko ci wàññiteeg dund gi ba xam milliards yooyee yépp ñu jël daal di koy jël dugal ko doon na loo xamante ne dina saafara jafe-jafe askanuk Sénégal ci diiru trois mois yi ak doxalin bi lan nga ci war a mën a tiire. journaliste nga noo. si. <laughs> soxna si. Mhm. day leen def ay recherche Sénégal dafa am budget. eurobond yooyu loi rectificative de finance moo koy déterminer pour ñu génn xaalis bi mhm. état Sénégal ñu fi jógee lii yëpp moo ko prévoir fii ci budget bi allez consulter le budget. sëñ Pouy mi war na koo dégg. non xam nga ma xam nga ma doguma. ma ne sëñ Pouy ah, ma ne sëñ ko war naa. xam nga ma doguma xam nga ma doguma. vous vous en ancien parlementaire. te nekkumoon Sénégal rek parlement parlementaire. Mhm. j'étais ailleurs parlementaire te dama am ni jaa sax droit pratique parlementaire eurobond xaalis bi ñëw na amee na xaalis bi ñëw na 450 milliards ñëw na ñëw na no accord la mhm. dañ koy xaalis bi ñëw na mhm. xam nga xaalis xam nga budget bi na lañ koy positionné naka lañ koy positionné budget par trois mois lañ koy positionné demal consulter les budget du Sénégal. li nga gis ni di nga ko ci gis. gis nga soo gisee débat yi temps yi bëgguma dem débat. parce que euh, dañuy nax sénégalais yi dañu dëkk di ndax sénégalais yi. de part d'autre nag ah ñenn suñu yi ak ñi fi nekk politiciens yi ak les médias. Mm. parce que yéen vous avez le vous devez vous imposer le devoir de faire de recherche un état qui vient de s'installer du yéen a ko wax un gouvernement qui de s'installer du yéen a ko wax. Mm-hmm. FMI bu la signalé tey da jot xaalis bi tey et puis Sénégal dafa am budget initial yooyu pour mu dugg il faut une loi rectificative de finance état bi ne lii ñu am nii fii lañ koy dugal te dans le budget général. ñoom war nañ utiwaat yeneen mille et quelques pour pour boucler le budget général parce que budget ñett yii la les impôts mhm. les taxes et les emprunts mhm. waaw de grâce bu ñu naxante yow 41 milliards quelle est euh, la la dette au pour pour paysan la mhm. on l'a payé quel ban mois ban mois lañ ko fay mois bële passé fu jëlee xaalis boobu alors donc euh, man quand je j'accepte de venir c'est pour lut as tuuti bi ma xam ma partager ko nit ñi kii xam na mu baax la politique j'en fais pas une fixation APR laa bokk mais j'en fais pas une fixation la politique parce que lépp lu may def damay seet sama diggante ak sama borom dégg naa léegi monsieur Guèye di wax ne on a trouvé un euh, un pays à terre mais prenons secteur par secteur ma woon li wax loolu amul dans le secteur de la fonction publique les salariés salaire fu ñu ko jële un pays qui à terre dina augmenter ay salaire allez demander aux enseignants C'est ce qui percevait 250 000 francs. Ils sont à combien aujourd'hui Allez faire le tour du Sénégal. Combien de routes ont été faites Courant, il faut le démoule dans, dans le pays. Ndox bi fan la demul dans le pays on peut à Dakar raconter du n'importe quoi. Ah, je ne parle pas de non je ne ah. parle pas avec toi. Ah, je parle de manière globale. loolu ah, yow waxuma la non waxuma la non dama lay wax rek. non grand yàgg nañ débat maa yi. waaw jàngal dara. non déedéet jàngalul woon. non soo waxee na ne ni. nga tudd ma léegi moo tax ma. non nga wax sànq laa la wax. ah dama la ne yow sa wàllu bopp. yow la sa wàllu bopp man. ah ma yow sa wàllu bopp. booy booy évaluer quelque chose. dafa am des critères d'évaluation. boo ma ne gouvernance a beaucoup pêché. Mm-hmm. mais nit ki bu defee dara. da nga nangul ne def na dara pétrole bii ñu am tey tout ce que les gens disent les contrats ils vont voir les Sénégalais vont s'en si les contrats ont été bien libellés ou non la désinformation ak li ngeen wax la mésinformation moo yàq réew mi ku ci nekk fa nga nekk ngay seet la neex ngay wax ngay wax on a laissé un pays stable. les salaires son payés réew bu nekk à terre doo fay salaire. moi j'étais au parlement panafricain j'ai j'ai bokk naa ci ay groupe de réflexion bokk naa ci yu bëri di dem ci ay pays ñuy xool ci situation yi mel noonu. ce pays tey accès bi am na fu nekk. la preuve bi ñu demee bi ñu demee élection élection présidentielle da ngay gis kenn ku jógee léegi dem daa ñib si tey fanaan si Dakar. lan moo ko waral le pont de Marsassoum la transgambienne rien que loolu rek waroon na tax ñu sagal waa ji <coughs> éducation combien de lycées ont été faits ont été construits combien d'écoles élémentaires ont été construites mais ci éducation bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di enseignants yi ñoom ñoo dëkkee woon ay grève ak i revendication non parce que lan la parce que tous les généralement généralement c'est ce qui dirigeait les syndicats ils sont tous colorés politiquement mais suñu amoon satisfaction suñu amoon satisfaction est-ce que grève boobu noonu dina am. yow li ñu grève loon yow da nga njëkk wax salaire est-ce que tu sais que les les enseignants du sup du moyen secondaire la il sont à sept cent huit cent mille francs de salaire xam nga loolu à y a des quatre cent mille de salaire xam nga yan enseignants secondaires ñooy toucher sept cent mille. c'est ce qu'ils ont fait cinq ans d'études ils ont plus que ça. Ah bon? Les inspecteurs, ils ont presque près, ah bon? euh, près de 2 millions. Ah bon? Moi, je suis dans le secteur de l'éducation. Ah non, non, non tu, tu n'es plus dans le secteur de l'éducation. Moi, je suis dans le secteur de l'éducation. Ah non, tu n'y es plus. Kolokor? Ah, tu n'y es plus. ah waaw ah, d'accord hmm. non man nga yor école non man man je parle. non loolu fi ngay li li ngay wax. au niveau du moyen secondaire au moins du moyen ah, secondaire. y a y a y a des enseignants qui ont hmm. qui ont quatre ans. ni trois ans. les di am cinq ans. ma daal secondaire bi laa la wax. moyen secondaire je ne te dis ah. pas moyen général moyen secondaire laa la wax. Mhm. waxuma la moyen général moyen secondaire laa la wax. Mhm. c'est li ñuy wax lycée. va vérifier tu verras suba na nga dem vérifier ji. Mhm. deuxième chose ñun notre signature moo may gouvernement l'actuel gouvernement li am li ñu am bi ñu demee Washington man je ne voulais pas. ca débat ñu dugg ci yii man la ma bëgg. c' ñuy wax loo xam dafa amal njëriñ réew mi mais bu ngeen ne à terre bu ngéen ne dara doxul dans ce la réew bu doxul doo fay salaire courant bi de kuy xuy kamaj ku xuy kamañ ngeen di wax. ndox du am. ak yeneen ak yeneen ak yeneen. te jaameex la lu bëri am fii tey c' le comportement des sénégalais de BRT bii ba mu bañ ko waroon ubbi. ah est-ce que ubbi woon nañ ko lan moo ko waral kaas yi doon am yàq-yàq yi ña doon yàq ña ñan doon yàq ah. Mhm. tey ñiy wax tey ñi doon wax tey. j'ai beaucoup aimé la réaction de Cheikh Tidiane Dièye sa première visite dans le pays qu'est-ce qu'il a dit il a dit des choses énormes fet nit da ngay nangu parce que suba dinañ la évaluer. yow danga da nga bëggoon wax ndax du te lu ñu wax ci yow nga commencé kaas di wax mais ku xool xam administration mooy la gis ay lettres ñu koy bind ak ni ñu koy bindee ak termes yi ci nekk di ko adressé à quelqu'un boo xam ne da nga bafoué completement le protocole de l'État. mais. j'ai une question. par rapport ak baisse des prix bi nga xamante ne état du Sénégal ñoom dañu amoon benn kàddu bu ñu doon wax muy gouvernement bi installé wu gënuñu subventionné ñoom ñu ñëw daal di subventionné ci loo xamante ne toll na ci 53 milliards. 53 milliards yooyu est-ce que sur quoi lañ ko subventionné. Euh, par ne ni moom moo. ah ñoom ñoo doon kaas Macky Sall leen. Macky Sall yi suukar seeg mburu meew mi nga xamante ne nii yenn yu ci nekk daal dinay am ab wàññeeku suñ ko jëloon dugal ko. ci li nga xamante nii moom moo di mbay est-ce que du ñu am autosuffisance en riz. soxna si xam nga sànq dama la ne. Mhm. le problème des formation politique du Sénégal même APR ci la bokk c'est que d'abord on n'éduque pas nos militants on les forme pas mais on se prépare pas à la gestion de l'État boo demee en Europe mhm. da nga gis gars yi dañuy créer ay cabinets Abdoulaye Wade l'a tenté une fois de suivre parcours yi di suivre évolution au plan social au plan politique au plan économique mm-hmm. di xool di mesurer di di concept lii fay fan lañ nekk pourquoi les fay mm-hmm. man su ma ñëwee nan laay rectifier lii pour éviter ko pour avancer mais su leen salaamaaleykum ñu jox la dara tu viens pour la première fois mosoo nekk à un certain niveau de gestion mais li mooy mën nga ànd ak dal xool mais chaque jour tu sors et boo génnee rek c'est la catastrophe c'est la catastrophe réew mi ñoo ko moom te gis nga nag kaay ma wax la ñu naan le monopole de la vérité et des savoirs d'accord donc mhm. si on veut aller si on veut vraiment développer ce pays d'abord il faut la jonction de toutes les forces pouvoir opposition et ñi nga xam ne sax bokkuñ ci yooyu yi nga xam ne ay sénégalais bari xam-xam am fi nekk fi te duñ leen déglu mais bu ñu buggee changer réew bu ñu par exemple maay dégg ne 100 jours mais 100 jours là c'est universel partout en France partout les gens disent durant les 100 jours qu'est-ce qui a été fait parce qu'en vérité. mais quand vous venez. mais 100 jours fu mu jógee non mais vous les journalistes yow. vous les journalistes xaaral xam nga xam nga augmentation yi ngay wax nii c'est-à-dire loolu. loolu loolu ak fu mun na jógee. non fu mu jógee xanaa la ñu wax Abdoulaye Wade on disait ça. Abdou Diouf on disait ça. Macron on a dit ça. Biden on a dit ça. ah Biden on a dit ça arrête arrête. bon li may xam naa ko. Biden ah, on a dit ça les 100 jours de Biden. Mm-hmm. loolu évaluation bu nekk évaluation la. partielle su ko nëri parce que nit buy nugal liggéey weer bu nekk sax war nañu la mën a natt weer bi lan moo xew. qu'est-ce qui a été fait et quest n'a pas été fait. Mhm. alors loolu c'est tout juste pour que même ñu xam concrètement fa lañ jëm et looloo tax lu mel ni déclaration de politique générale dans le règlement intérieur ñu noon trois mois parce qu'on dit que trois mois boo toogee toog nga commencé nga gis dossiers yi xam nga orientation yi léegi toog nga léegi na ñu natt li nga toogee qu'est-ce qui a été fait. Mhm. qu'est-ce a été fait effectivement. tey bu ñu toogee daal di gis état du Sénégal yëkkati ci lu tolloog 10 milliards fay ko waa couverture maladie universelle ci diirub